ci accident bu métti bi fi am ki démb ma ngi di leen ñaanal ci turu président la république yàlla xaar leen àjjana sëriñ bi am naa mbegte lool président yabal ma fii yabal ma ci sama sëriñ yabal ma ci sama waajur ci bés bi muy bésu foroxaan bésu màggalu maam jaara waajuru Cheikhul Khadim jaaratulaay garaat la bu ñu ko takkal te loolu mooy tekki jigéen gi dëkk ak yàlla te loolu lépp jaamu yàlla ak rafet jikko moo ko ko may maam jaara aw turam di soxna Mariama Buso aw fanam guddul ndax fanweeri at ak ñett rekk la dund waaye njariñ rekk la lim boobu la yonent yàlla isaa dundoon àggale mission bi ko sunu boroom santoon maam jaara tamit liggéey na ci diir boobu lu waral tey àddina fépp di réer di wut di réer di wut si fii di siyaare si njabootam ak bërëbam yi maam jaara teel na mokkal alxuraan ci waajuram bu jigéen nekkoon na it ku daan bëri ay julli nekkoon na it ku bari woon lu mu daan joxe alalam ku fonkoon maam Mor sëriñam maam jaara àdduna ba mu daj ci histoire lislaam amul benn jigéen bu am bés bu toll ni bésam bii kon tey ku fi ñëw war ngaa ñaanal soxna jaara tey ñaan ci barkeem ñu ngi ñaan mboolam jigéen ñi fi ñëw ak ñi ci réew mi ñu jéem a roy jikkooy soxna si rawatina nag ñuy dëgmal journée du 8 mars mbootaayu xeet di jagleel ko jigéen ñi daara ji nekk poroxaan bokk na ci kéemtaan yi nga xam ne mu ngi fi feeñ ndax foo mën a wàññee ay junniy dongo ñu bokk benn tur bu ñu fi génnee mokkal alxuraan ak seen xam-xamu diine yépp boole ci yar bu rafet réew mu mu bari jàmm na fa bari ñu ñaanal sëñ Moustapha Bachir mi nga xam ne moo ko sosoon sëriñ Muntaxa yow mi sas boobu nekk tey ci sa loxo yàlla def di fi sa mag ju baax jooju sëñ Sidi Maxtaar làqo bu yàggul nga dolli ci toog toogaayu Sëriñ àddina bi yépp Macky sa doom lii ñu weesu ngir ziyaare la ak feeñal taxawaayam ak yéenéem ci bésu maam jaara bu mag bi waxal la limu am yéene def ko ci dëkk bii mu wax ne gannaaw boo xamee ne ñi baax ak ñi bëgg lu baax ñépp nangu nañ ne soxna Mariama Bousso royuwaay la ci mbooleem jigéen ñi bëgg am lu baax ndam lu rëy la itam ci mbooleem askanu senegaal wépp war na noo def lépp lu ñu mën kon ci dëkkam bii di Poroxaan ak màggalam gi di màndargaam di màndargaal waxtu wu nekk dayo bi am moom soxna su tedd soosu li lii nag tax na ba président Macky Sall jël na ay engagement ci ne lépp lu dëkk bi aajowoo moom dana ci taxaw moo gouvernement am ci def ko ci waxtu wu màggal gi di ñëw dana joxe instruction mboolem service yi pour ñu taxawu ci neena nag mu ngi ñëw tey rafet lu baax moom président taxawaay bi nga xam ne daaray soxna jaara ji ci poroxaan mu ngi koy taxawee ngir jàngal ak yar ndaw yi jigéen ñi ci jaamu yàlla ak lépp lu war a doon taxawaayu jigéen ci biir këm ak ci biir askan bi sëriñ bi ñoo ngi lay xamal ne suñu xel gën naa dal bu baax ngir li nga am yéeney tàmbali tàmbali ko sa liggéey ci toolu sa maam Serigne Touba muy taxawal daara ji boroom tubaa doon ñaan boromam Serigne Touba wax na ci xasida bi mu tënk laqad jaakum bil mustafa كان القدوس ñaan yàlla maa ngi lay ñaan ci daraje yonent yàlla sallallahu alayhi nga tabaxal ma ab jàngukaay boo xam te di xeex réer ak bépp melokaan wu mën a lor jullit ci walla ci wàllu diineem mën a gàllankoor société bu dëkk muy jàngukaay boo xam ne Sëriñ Mbàkke Buso bind na wax ne moom rekk ak ji ñooy ñaari naal yi mu bàyyi njaboot bi mu fi wujj it moom sëñ Mbàkke Buso ne sëriñ bi faggul daa jooju xam ne moom rek ko amoon ci réew mi jamono yooya wax na itam ne la ci sëriñ bi yéene woon mooy mu doon jàngu kaay boo xam ne saa ci ko taxawale kuy laxasaayu ci réew mi di wut xam-xam mooy doon sa wàccuwaay nag sëriñ bi bu la yàlla ci bopp yoon wi nga jël naal boobu desoon ci mébétu sa maam xaadim rasul def ko muy jenn yitte yi nga am ci kaw suuf xel yépp war nañoo dal président nee moom ak gouvernement dañu ànd ak yow ngir gën a jàppale waxtu woo xamee ne li ci bëgg yow sottal nga ko ci nga koy defaree bi mi ngi dellu di la wax ngir jàppale la ci daara jooju mu ne ma bi mu ñëwee fii Porokhane yi nga xam ne mi ngi dugg ci dëkk bi fas na fee def li ñuy wax xolu poroxaan muy investissement yu am solo salle de réception ak yeneen jumtuwaay yu wër jumaa ji ak bërëbu soxna si lu mel ni ay dalwaay yoo xam ne yi gan dana fi mën a dal pour gën a taaral dëkk bi yamul ci loolu joxe na ndigal bi mu fi ñëwee ñi def plan directeur d'urbanisme boo xam ne bii dafay rëdd nii nga xam ne noonu lañ bëgg noonu ngeen bëgg dëkk bi mel ko ay at kanam président delloo it bëgg na fee defar fii ñaari mais benn bu ci nekk def téeméeri mètre ak juróom fukk ndax nit ñi mën a jéggi xur wi di dem di dem ak dikk te mu mën a yaatal dëkk bi benn bu ci nekk mu def ci boo xam ne bii dem beeg dikk bi dana gën a yomb loolu plan yi pare na bi mu fi ñëwee won na la ko yaakaar naa ne tàmbali liggéey bi dong moo ci des loolu lépp dafay firndeel taxawaay bi mu am ci jàppale këru diine yi waaye rawatina këri sëriñ Tuubaa sëriñ bi ñoo ngi dellu di sàkkuwaat ñaan ci darajey borom bis bi yàlla gëna sàmm réew mi gën koo aar itam ba lu mën a indi fit dolli dolli ak